auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin amin allahumma salli ala sayidina muhammadil fatih siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق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 ak képp ku fi rek ak presse boo mën a doon dañ ñëwoon nag ci kàddu Ahmed Cissé fii ci kàddu njëgal di jéggalu sénégalais yi di jéggalu umma islamique bi di jéggalu kalifa diine yi di jéggalu imam yi ak jàkka yi noddkat yi ñëpp ñu ngi leen di jéggalu di jéggalu autorité yi état bi autorité justice di jéggulu it waa Jamra ndax Mame Matar Gueye Amet jàkkoo naa ak moom wax nañ njéggalam ne na ko jottalil ci umma islamique bi maanaam Mame Matar Gueye ko tooñoo ma umma islamique bi kon da ngay jéggal umma islamique bi ñun ñu ñëw ci turu Amet ba tey ak turu famille bi fépp fu jullit mën a nekk ci Sénégal ak ci biti Sénégal ñu ngi jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan ngeen bal ñu àq nit nag du mat amet njumte moo ko dab waaye nag man de yar nañ ko ci diina jàngloo nañ ko xamloo nañ ko xam na njumte nag day am ci doomu aadama waaye jullit akkan la jullit la xam na nu ñuy jullee xam na farataay julli xam na li diina lislaam wax waaye nag doomu aadama du mat kon loolu lañ ñëwoon tey pour di ko jéggalu di ko jéggalu senegal yi di ko jéggalu jullit yi ak kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jéggalu lii moo taxoon tey ñu ne nañ ñëw ci presse bi déclaré loolu pour jottali leen ne Ameth dafay jéggalu umma islamique bi di jéggalu senegal yi fépp fu julli ne ba ci ci gën a tuuti nga xam ne démb sax la judd di jullit ak ku di jullit yëpp amati leen di jéggulu olof Njaay nag day wax netti li la ñun ñëwuñ fi naan amel lii la waxoon lële la waxoon njuumte dam na ko nangu na ne juum na mu ngi sàkku njégal ñu ngi koy jottali njégalam ci ñëpp nag ci yéen presse bi di leen sant di leen gërëm seen taxawaay rafet na kenn ku ci ne rek yàlla na am médiawu boppam nu mu ko buggee yàlla def leen mag def leen mag yu barke lu ngeen yóotu rek yàlla yàlla bu seen dara yàqu loolu moo taxoon daal ñu ne nañ fi ñëw tey pour wax loolu ak yëg ko Sénégal ak fépp bu julli nekk ci biir Sénégal ak biti Sénégal comme li kii euh, Gallo mi wax rek mag papam ñoo bokk ndey ak baay kii suma doom mag la sama doom bi baay Seexu ba tey moo amet ñoo bokk benn baay ba tey kii yaayam ak suma yaay papa yaayam ak suma yaay bokk benn baay Ahmed ku baax la ku jullite la ku baax la ku jullite la doomu adama du mat xëy na njuumte moo ko dab waaye ñu ngi jégalu njuumte googu dab ko ñu ngi ñaan képp ko xam ne sa xol métti woon na ci ñu ngi lay jégalu nga baal ñu di ko jégalu ci mu boppam mi ñu ko santoon di ko jégalu ñun ñi nga xamee ne ñooy famille di way juram ci famille Cissé bi yëpp mm. bi mu bokk looloo taxoon ñu ne nañ fi ñëw tey di jégalu Jamra tax jox jote nag jox jote na Mame Matar Gueye ba yónnee ñu ngi jéglu daal lépp wax ci presse nag yombut waaw wax ci presse ci boppam moo yombut waaye daal lu ci mat yàlla lu ci matadi ci man la maa leen sant di leen gërëm jërë ngeen waaw autorité yi ñu ngi sàkku ba tey autorité yi muy état bi di justice bi ba ci président sax ngi sàkku jéggal ci moom ak bépp kooram asalaamaaleykum wa rahmatullah du noonu hmm. loolu loolu la moo ñu andi woon loolu la ñu waxoon ne nañ ko wax yéen nag kenn ku ci nekk xalifa généraux yi ñëpp jéggalu lañ leen waaw fukki régions yi ñent ci Sénégal ci gàttal mhm. fufi fi diina nekk rek ak ku du diina yëpp ñu ngi lay jéggul yéen ñi fi toog it ñu ngi leen di jéggul di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla taxawu leen ci saayir ak baatin waa ak autorités yi yëpp ñu ngi leen di jéggul bàyyiñu kenn waaw bàyyiñu kenn dajal ñu du yomb waaye daal ku dégg ku déggul yëpp ñëpp la ñu baalu ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ